Ah. mais sëñ Mbacke moom moo la invité pour que ngeen dem seeti Serigne ah, Mbacke. loolu du ma ci loolu du ma ci loolu da ma koy baal du ci sori. en tout cas li nga mën a jàpp comme information am na jëmm ju ñuy wax Imam Dramé jóg am ay initiative en tant que nitu diine en tant que tamit ku bëgg réewam waaye en tant que gëm ni réew mi kenn ëppalewu ko fi loolu la gëm man loolu laa gëm bu ñu ko doon séddoo damay jël yomb ma jóg ànd ak ku ñuy wax sëñ Mbacke Ndiaye. ñu dem seeti Serigne Mountakha fekk fa kilifa gu mat kilifa. mais xam nga sëñ Mbacke xam nga xam nga li paradoxal ci sa démarche bi. Mhm. sëriñ Mbacke balaa muy dem dafa dem tàggu. Mhm. Macky Sall. sëriñ Mbacke moom moo ñëw invité la. pour que ngeen dem waxtaanee ëllëgu réew mi. Mhm. parce que réew mi fi mu jëm. baaxul. ngeen dem seeti sëriñ Mountakha. Bassirou Mbacke. ngir tegal ko situation bi. moom mu mun cee jóg jël ci ay matuwaay. waaw man li ma gënoon a yóbbu ci sëriñ Mountakha. Mhm. mooy sëñ Mountakha xam naa ni dara ump ko ci réew mi parce que entourage bi ko wër yëpp ay borom yi xam-xam lañ nit ñu xam réew mi lañ waaye man dem ci sëriñ taxaa jàkkaarloo ak moom. waxtaan ak moom en tant que kuy waxtaan ak sa baay parce que sama baay la parce que seqoon na ak sama baay loo xam ni jàpp naa ni baay laa ko mën a jàppee parce que man mu man mu jóg dem dem Touba boo xamee histoire loolu du événement parce que man am naa jarbaat yoo xam mën nañoo nekk xalifa Serigne Touba ku mel ni Serigne Abo maa ngi koy nuyu bu baax bu Serigne Fallou. parce que mais mais laa ah, ci politique nekkee ci politique man politique ah. ak li may wax nii ci laa nekk man danga may may tuuti ma daaneel waaw même bu ñu nekkee ci politique dafay baax ñu xam kii wax moom lan moo ko lee ak Touba loolu dafa baax réew mi xam dama la bëgg a wax ni man mu dem Touba. seeti Serigne Mountakha wax ak moom li xew ci réew mi ci ñi xam réew mi loolu du événement parce que Touba ak fa ma dëkk du ñaari kër benn kër la. xam nga lan mooy information bi. waaw xam la moo tax mu doon événement. Mhm. yow El Hadj Malick Dramé. Mhm. boo demoon Touba. Mhm. dox fa la nga fay dox. kenn du ci wax c'est très normal. ñu bari mën nañu jàpp sax nax ne da nga dem féddali yee salaat sa sa sa sa sa sa cofeel mais lii information bi mooy. ne dañoo dégg président Macky Sall dem na Touba. ñu dawal information ne imam Dramé ak sëriñ Mbacke Ndiaye dara lañu si sëriñ ci Serigne mu ngi bokk Benno Bokk Yaakaar. imam drame mu ngi bokk Pastef. seeni camp yi actuellement du ñu laalante en loolu moo tax mu doon information. bu nekkoon yow kese yaa dem. Ah. wala Serigne Mbacke kese moo dem. Mm-hmm. du doon problème mm-hmm. ensuite. ñu dégg wëlbatiku dégg Pastef ne ñoom yónneewuñu yabaluñu mm-hmm. désigné wuñu kenn mm-hmm. loolu lépp nag moo tax mbir mi mm-hmm. nekk information léegi nekk événement léegi euh, Maimouna bi ma toogee fii confirmé naa la ni la Pastef yónni yónni wu ma fa loolu wax naa ko non ci sama commencement wax bi may dem Ousmane Sonko bi ma demee ba ñëw lay soog a xam ni dem naa man i la man en tant que koo xam ni ah wax naa la bi ma tàmbalee ni la man ay parti tënku ma te loolu da nga dama ko wax nii rek man man parti tënku man Séné man senegal moo ma tënk Sénégal mu ëpp doole parti su ma gisee ay nit di ay bakkan di tuuru ci réew mi deret di di yol di yol te ñiñ koy def di suñuy nawle di ay sénégalais man ma xam ci li yàlla wax ci ci bakkan bu bakkan bu tuuru li ci alxuraan wax nga xam ne képp ku rey benn bakkan te tey ko dafa mel ni rey nga àdduna yëpp ku fexe ba benn bakkan bu waroon a faatu dund dafa mel ni dundal nga àdduna yëpp loolu sama conscience moom ma dul mayati ma toog léegi li may may mooy man nan laa mën a def man ba bakkan yooyu ñuy tuur arrêté. ngeen dem ngeen waxtaan ak sëñ Mountakha. c'est important kon ñu xam li ma fa yóbbu. Mm-hmm. mooy en tant que ab sénégalais bu gis ay ay nawleel sénégalais ñu leen di rey comme ay weñ mu déranger ko. te xam ni mën naa bokk ñooñu ñi rey jarbaatam mën na cee bokk doomam mën na cee bokk moom sax mën na cee bokk mu jël ay responsabilités dem seeti koo xam ni jàpp na ni bu fa demee bakkan yooyu ñuy rot ñuy rey dina taxaw. donc yéen ñaar yaa Serigne Mbacke ngeen dem. Euh, sëñ Mbacke moom lu sëñ Mbacke bis boo ko invité nga laaj ko lu ko fa yóbbu. voilà mais man Imam Dramé wax naa la li ma yóbbu woon Touba. yaa ñu dissocier seen dem yéen ñaar yéen a ah. ànd ah. sëñ Mountakha recevoir leen léegi dama bëgg a comprendre hmm. parce que dafa mel ni vous semblez diir que euh, ni fa ni ñu fa président ni mu fa dem seen rapport ak seen ak ak seen visite cest à hmm. link bi lan la waaw xam nga président jàpp naa ni ku xam réew mi xam doole ji président am toog naan imam Dramé ak sëñ Mbacke Ndiaye ñoom ñoo dem Touba pour yóbbu fa président loolu amoo information sëñ ma président yaakaar na bu soxlaa. non pas man waxuma ko c'est ce qu'on essaie de nous faire. waaw da déglu am na ñu ko wax ki ko wax dinaa la tuddal turam léegi. parce que man bu ñu dégloontee rek waxtaan wi dina leer. Mm-hmm. ñun mënuñoo yóbbu président foofu président moo defi pexe pour demal fa boppam moo fa yóbbu boppam loolu foo mu leer te loolu la war a demee président de la république